ok alhamdulilah incha allah ñu ngi nekkoon ci jeexitalu buntu bi ñuy tuddee baabun fil mujahada yegsi woon ci fukkeelu xadis bi ak juróom benn nekk téeméereelu xadis ak fukk ci téere bi ca mooy an abis mas'ud uqbata ibn amru al ansari al badri qaal lamma nazalat ayatu sadaqa fukkeelu aya ak juróom benn mooy ba fukkeelu xadis ak juróom benn al xadis sadis achar nekk téeméer ak fukk ci baabul mujahada an abi mas'ud uqba kon alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk li mooy sunu téere riyaadu salihin di ay xadis yoo xam ne imam nawawi rahimahullah moo ko dajale loolit ab julit war a xam ne diine ñaar ca la tege téereb yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon incha allah ñu jël sunu njëlbeenu xadisu tey yaakaar naa radiyallahu anhu qaal لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سورة التوبة متفق عليه هذا لفظ البخاري ونحامل أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها سنو حديث بجك saxaabi yi nga xam ni mooy abi mas'ud di uqbata ibnu amrul ansaari al badri nga xam ne fekk woon na badar nee na lamma nazalat aayatu sadaqa ba mu demee ba wàcc aaya bay ñaaxaate ci ñu génne sarax kunna nu xaamilu ala zuhurina ñun fuqara yi day dañu nekkoon dem di yenu ci sunu gannaaw yi fa jaa rajulun fa tasaddaq bi shay'in kasir benn góor ñëw sarxe alal ju bari fa qaalu muraa naafiqi ne ah ngistal kese wa jaa rajulun axar fa tasaddaq bi saa'in beneen góor ñëw indi sarxe benn la nga xam ne mooy saa tolloog ñaari kilo fa qaalu inna allaha la ganiyun an saa'i haada ñu ne yàlla day ku woom le la ci saa waa ji mu indi ci tàndarma wala ci pepp fa nazalat allazina yalmizuuna almutawiin ña nga xam ne day dañuy ayibal ñay coobarewu min almuminina ca julit ña fi sadaqaati ca sarax yi ñuy génne wallazina la yajiduuna ila juhdahum ña nga xam ne nag amuñu lu dul seen kàttan ga doonte ne boo delloo ca sar ba ma ngi ca tegu fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum ñi ngi leen di saboote yàlla ma nga leen di saboote mbokku xadis bi lan la nga lam la ñuy jàngal mooy sunu boroom digle ne génn leen sarax génn sarax boobu ñu bari dañuy jàpp bu ñuy ne nañ joxe ñi ngi ci jublu ñi ñi- ñi am kese waaye xadis bi daf ñuy jàngal ne ndekete ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi am ak ñi ñàkk ñépp a daan joxe looloo tax sahabi bi nga xam ne fekke woon na badr waaye moom ca faqiir ya la bokkoon nee na ñun day amuñu woon dara waaye nag daanañ dem ca marché ba di yenu ci sunuy kaw mbagg bu nit jëndee dara ñu yenul ko ko yóbbul ko ko mu am luñ ñu jox looloo tax bi yeneen bi laajee sarax léeg-léeg ci juri ñi dana am ku indi alal ju bari joxe naafiq yi lu ñuy wax xam ngeen ne ngistal rek moo tax muy indi lii ci kanamu mbooloo mi donte ne ne mbokk julit doomu aadama bi bu dee ne kilifa moo woote ñu joxe joxe boobee nga jël lu bari joxe da ngay gis ni julit bu baax bi lan la ciy jublu moom mooy ngir ñeneen roy ko ci loolu su ko defee ku ko ca roy day am tuyaabam am tuyaabay kooku loolu nag bu ko defee naafiq yi ne ngis sal rek a tax ñuy def li léegi lañ gis benn faqir boo xam ne lam joto yenu bañ fay ko ca jënd na ca benn soo mooy li ngeen di génn muurum koor indi ko ci pepp wala ci tàndarma su ko defee naafiqi na waaw yàlla lu muy doye lii gis ngeen donte ne ne sunu borom daa wàcce aaya ngir défendre jullit ñi défendre ña woomle défendre fuqara yi mu ñuy jàngalit ne mbokk sunu borom subhanahu wa taala alal ji yéemu ko li nekk ci biir xol yi moo ko yéem moo tax yonent bi alayhi salaam bokk na lu ñu jàngoon ca gannaaw inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yàlla seen alal ji xoolu ko yàlla seen alal ji en seen jëmm yi itteelu ko li yàlla bëgg dëgg dëgg dëgg mooy xool seeni xol su ko defee kon benn waay dana indi masalan fukki saako tàndarma kee indi benn potu tàndarma sunu borom yàlla gën a fonk benn potu tàndarma bi ci fukk saako yi ndax yéene bu sell ba jóge ci biir xol ba looloo tax yonent bi alayhi salaam dañuy wax ni benn jaamu yàlla dana sarxe benn tàndarma benn tàndarma yàlla subhanahu wa taala jël ko di ko ful comme kenn ci yéen ni muy amee benn mol wu gàtt mol mol fas wi doo ko judd mu koy yar ba mu nekk naaru góor suñu borom dana ful tàndarama bi ba mujj tal na montagne ngir sell ba nga xam ne fu la jóge loolu it kon di ñu jàngal mbokk sarax bu ci xeeb dara toll nga ci joxe million joxeel million cent mille nga toll joxeel cent mille mille nga toll joxeel mille mais sa doole toll lu dul boo gisee faqir wala fu ñuy woote lislaam nga làmb ñaar fu ko joxe làmbal ñaar fu ko joxe bu sellee rek kenn ëppalee turo tuyaaba ca yàlla yàlla na yàlla yombalal ñu ko
عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
xadis bi nga xam ni mooy téeméer ak fukk ak benn ci téere bi de fukk ak juróom-ñaar ci buntu mujahada ki ñu koy nettali mooy sayid ibn abdul aziz mu jële ko ci rabia ibn yazid kooku jële ko ci benn taabii bu ñu wax abi idris al xawlaani mu jële ko ci sahaabi bu ñu wax abi zar jundub ibn junada kooku jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ma yarwi an anillahi taala ca la yonent bi di nettali mu jóge ci yàlla tabaraka wa taala annahu qaal sunu borom subhanahu wa taala moo ne ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altu wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazaalamu ey yéen samay jaam araamal naa tooñ ci sama bopp def naa ko mu xaraam ci seen diggante ngallawaay bu leen tooñante yaa ibaadi kullukum dallun illa man hadaytu yéen ñépp day da ngeen réer lu dul koo xam ne maa ko jubal fastahduuni ahdikum na ngeen sàkku ci man njub su ko defee man ma jubal leen yaa ibaadi ay yéen samay jaam kullukum jaa'iun illa man at'amtu yéen ñépp xiif lu dul koo xam ne maa ko leel fastad'imuuni at'imkum sàkku leen ci man ma leel leen ma dundal leen kon dinaa leen dundal yaa ibaadi kullukum aarin illa man kasawtu yéen ñépp da ngeen a rafle lu dul koo xam ne man yàlla maa ko waddu mi ngi noonu fastaksuuni aks aksukum na ngeen sàkku ci man ma woddu leen kon de dinaa leen woddu yaa ibaadi innakum tuxti'uuna billayli wannahaar wa ana axfiru zunuba jamia yéen de yéen a ngi def bàkkaar ci guddeeg bëccëg ca man may bale bàkkaar yi mboolu seen fastaxfiruuni jéggalu leen ma axfir lakum ma jéggal leen yaa ibaadi innakum lan tablugu durri fa tadurruuni yéen day mënu leen a jot sama lor ba di ma mën a lor walan tablugu nafi fa tanfa'uuni mënu leen jot sama njëriñ ba nekk di ma jëriñ loolu mooy genn wàll ga ci xadis bi nga xam ne moom la ñu tiim bokk xadis bi ci xadis yi gën a yéeme ci li yonent bi alayhi salatu wasalaam nettali la suñu demee ba ca fin ba dañuy gis ne kii nga xam ne moo ko nettali di abu idris jële ko ci abu zar musul nekk di jàngale xadis bi lu dul di naan groupe sukk ngir màggaayu wax ji nekk ci xadis bi xadis la boo xam ne boo delloo ci ibnu taymiya bind na ci téere lëmm ci xadis bi kese loolu kon ñu gis la ca nekk ci ay jàngale bari na sunu borom yàlla li yonent bi ne yàlla nee na lii la ñuy tuddee xadiisul qudsi xadiisul qudsi mooy lu yàlla wax yonent bi te bokkul ci alquran di ñuy jàng ama xadiisul nabawi mooy loo xam ne yàllaa ko xelal yonent bi yonent bi wax ko waaye sunu borom nee na wa ma yantiqu anil hawa yonent bi du wax ci bànneexu bakkanam ama xadiisul qudsi moom yàllaa ko ko wax lan la sunu borom jëkk a wax ey yéen samay jaam man araamal naa tooñ ci sama bopp mbokk sunu borom mooy buur bi def lu ko neex looloo tax nee na araamal na tooñ ci boppam looloo tax du tooñ benn jaam jaam yi ëllëg mi ngi leen di àttee bi adlihi wa fadli ci maandu teem ku fa indi lu bon mu àtte la ci maandu teem tabbal la sawara loolu ci maandu tem la waaye du wàññi say bakkaar du wàññi du du yokk say bakkaar du wàññi say tuyaaba amma jullit bi mu àtte tabbal aljanna loolu ci ay ngëneelam la waaye yàlla du tooñ kenn bal kataba ala nafsihi rahma lam bind ci boppam mooy yërmaande nit dana indi bakkaar mu yërëm ko tabbal ko aljanna nit dana indi ay tuyaaba yàlla yërëm ko ful ko loolu ci loolu yàlla du tooñ kenn mu ne tooñ googu nag def naa ko ci seen bopp muy loo xam ne lu ma araamal la ngalla waay bu leen tooñante mbokk yàlla bëggul tooñ julit bi du tooñ mbokk julitam yonent bi alayhi salaam nee na seen deret yi seen alal yi seen der yi araam na ci yéen comme ni makka xaraame loolu tax julit war ngaa sàmm lépp luy jëm ci lor sa mbokku julit ci jëmmam tuur deretam fuq bëtam damm yaxam lépp lu jëm ci loolu war nga koo moytu moom la yàlla di at jëkk atte yowmal qiyaama fi jima gannaaw loolu alal ji waroo lekk sa alalu mbokk julit ci neen na doon ci wàllu riba la ci wàllu carte la ci wàllu sàcc la leb ko bañ koo fay kaza wa kaza yooyu yépp wóorloo ci lekk alalu mbokk julit gannaaw ba ab deram war nga ko sàmm bul nekk di ko duural bul nekk di ko jëw ila axiri yii yépp ay tooñ la yoo xam ne julit da ko war a moytu xatta même ab yéefér yéefér su dee nekkuleen ci déclaration de guerre amoo droit di jalgati di ko rey wala di jël alalam wala di jël nangamam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax xatta nit ki dee sax nit ki dee dafa mu orma yonent bi alayhi salaam nee na ki damm yaxu ku dee moog damm yaxu kuy dund benn la loolee di mbir mu ñu bàyyi jara bàyyi xel su ko defee suufa si yàlla si yaatu na da lay gis armeel yi ñu def ay erreur ñëw rek fii laa bëgg ñu suul fa gas gas génn ay yax suul ci kaw nit ki fekk ne ne seeyagul ci biir suuf mbokk loolu jaaduwul bu seeyee am nañ droit suul bu fukki nit mais waruñu jalgati ay yaxam kenn warul tooñ kenn fala tazaalamu sunu borom yàlla gannaaw loolu mu ne ay yéen samay jaam yéen ñépp da ngeen réer lu dul koo xam ne man maa ko jubal da ngeen réer réer googu mbokk ñaari façon la am na koo xam ni dañ koy tuddee réer goo xam ni taa'ih la waa ji daa sànk complètement xamul dëgg jëful dëgg am na koo xam ne nag raawi la xam ne dëgg jëfewu ko te loolu ngay dégg ci almaghdub alayhim wala dolin su ko defee kon jaam bi xam dëgg ci mbaaxu gi yàlla la waaye xam dëgg topp ko it ci mbaaxu gi yàlla la moo tax sunu borom ne dee leen sàkku ci man ma jubal leen kon dinaa dinaa leen jubal loolu tax ba julit da ngay ñaan al hidaaya ci sincérité heure booy juli di wax ihdina sirat al mustaqim na sa xol teewlu li làmmiñ bi di wax mooy yàlla jubal ñu ci yoon wu jub ba ñaar lay firi xamal ñu yoon bu jub bi dimbali ñu ñu sax ci ba dee ca gars yi lii mooy al hidaaya soo ko xamul noo cay jube waaye boo ca boo ko xamee ci déewoo ci juboo ca ñu ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon fastahduni ahdikum yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ni lim nii yéen ñëpp da ngeen réer loolu itamit dafay aju ci wàllu diine waaye xataa suñ wàllu àdduna jullit day ñaan yàlla jubal ko ci lépp àddunaam moo tax yonent bi alayhi salaam jàngal ñu salaatul istixaara heure boo demee ba jub benn mbir jullil ñaari ràkka su ko defee nga ne yàlla maa ngi lay tànnloo sa xam-xam bi di la dogalloo sa kàttan gi di la ñaan ci sa ngëneel yi yow yaa xam man xawma yaa man man mënuma yaa xam kumpa tukki bi ma bëgg a jëm su dee dafa baax sama diine ak sama àdduna yàlla nag ma ko yombalal barkeelal ma ko su dee baaxul sama diine ak sama àdduna wala sama mujj mbir ak sama njëlbeenu mbir yàlla nag ma ko soril te soril ci sama xol dogalal ma aw yi fu mën a nekk borom xam-xam yi dañ ciy dolli ne xatta booy dem ci place nga réer ñaanal yàlla mu gindi la yonent yàlla Moussa di loolu la waxoon dey keroog ba muy dem Madiyana ci réer ci biir àll bi lu mu waxoon asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil man nam yàlla jubal ma loolu mooy mbir bi yàlla nag mi ngi noonu nee na yéen ñëpp da ngeen réer maay jubal ko ma neex bul ne Sénégal laa juddoo sama papa julit la sama yaay julit la kon il faut mu nekk julit déedéet gaa yi am na ñoo xam ne seeni waajur ay julit lañu ñu wëlbatiku nekk yéeféer yeneen ci bi alayhi salaam am na ñu ko gisoon ci seeni bët da ànd ak moom ca jàkkaam ja ca taxul ñu gëm am déet tey yàlla dem biir Washington biir Moscou fa kéeféer samp boppam di fa jël ay doomi américain yi weex tàll di leen dugal ci lislaam yàlla kon muy jubal ku ko neex ak ku nekk sabab ba mu lay jëbale moo ko xam suñu benn doom bu jógee Italie mi ngi ñuy nettali benn waay boo xam ne ca baar ba la demoon léegi di xuloog benn mandikat julit ba ñuy xuloo mu ne ko seen bokkaalekat yi bu ngeen jógee naan Isa yàlla la nangam yàlla la yàlla kenn la laa wax gis ngeen waa ji dem mais bi mu demee wax yi wax ji marqué na ko wëlbati ko waat ca suba ga ñëw na ko waaw li nga doon wax démb naan yàlla kenn la loolu loo ci jublu mu leeral ko na ko yéen da ngeen di bokkaale yàlla kenn la isaa jaamu yàlla wax loolu waa ji wax jooju moo ko yéem mu commencé di gëstu lislaam di gëstu lislaam ba yàlla wërsëgal ko mu dugg ci lislaam am xam-xamu lislaam ca ba tey ka ko dugaloon ca caaxaane mu ma nga ca baar bay naan sàngara ba léegi waaw ngeen gis ne sunu borom subhanahu wa taala moom mooy dugal ku ko neex ci lu ko neex mi ngi noonu am na benn waaye boo xam ne la moom dañ ko laaj ku lu dugal ci lislaam mu ne George Bush moom mosul xam luy lislaam mais bi attentat yi amee Bush naan ay islam islam te la dem jënd ay livre islam ba loolu ko dugal ci lislaam kon yàlla kullukum daalun illa man hadaytu yéen ñëpp da ngeen di réer lu dul ko yàlla jubal kon sàkku leen ci man jub kon moo jubal leen gannaaw ba suñu borom mu ne ay yéen sama jaam yéen ñëpp da ngeen a xiif lu dul koo xam ne maa ko leel sàkku leen ci man ma leel leen ndax déggu leen foon atum xiif ma la crise des années trente loo xam ne matagul téeméeri at de matagul téeméeri at sun maam yi nekk fii mbokk xiifoon nañ bay dem di gas xorondoom yi di am lu ñu fa jëlee sun maam yi nekkoon fii da nga daan gis ay deru nag yu ñu sànni woon ba fàtte leen ñu ko daan jël di ko baxal ñaari fan pour am luñ ci lekk loolu da ngay gis na amul ne fii kon sunu borom mun a sàkku leen ci man ma leel leen gaa yi kan moo mën a wàcc taw kaw asamaan allah kan moo mën a meññeel suuf ba mu meññ allah loolu kon yàlla rek moo mën a indib dund su ko defee loolu it sabab lu bi mooy ñu ñaan ko yàlla waaye bokk na ci itamit def lu baax sunu borom nee na waa dëkk bi buñ jubee mu ubbi barke asamaan ak suuf mais suñu bewee yàlla dindi barke asamaan ak suuf sabab lu suñu kemtalal kattan suñ ko defee rek yàlla may ñu ñu lekk mi ngi noonu loolu mooy ci cadre général waaye même bu dee kenn kenn ci ñun bokk ku lekk yàlla la leel dañ gis benn milliardaire tey nga dem léegi hôpital Dantec fekk ko foofu meew sax mënu ko jàllaleel mosu leen dégg loolu waay ah kay meew sax mënu ko jàllale mi ngi noonu su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala mooy leel ku ko neex ci ay jaamam fasat muy nii ah ot imukum na ngeen sàkk ci man bu ko defee man leen leen mu wëlbatikuwaat ne ay yéen samay jaam yéen ñëpp da ngeen a rafle lu dul koo xam ne maa ko woddu mbokk sunu ndaw ñi tey judd ci situation bi ñu judd armalu cinq battant six battant bal but ba but fees dell suufaran la léegi yépp fees ak yére sunu lu matagul téeméeri at bal lu matagul sax juróom-ñaar fukki at amoon nañ fii ci àll bi ay dëkk yoo xam ne kërug lëmb benn sër moo fay am kuy génn waddoo ko boo ñëwee tegaat sa morom buy génn waddoo ko dama nañ ba ñoo xam ne nii mbuusu bëy yi lañ daan waddoo loolu yi am na fii mi ngi noonu sunu benn ku ñu jege mi ñuy nettali ne mas na tëdd gént benn magasin yi nekkoon ci dëkk bi am ay yére bi mu ko waxee benn góor gu ne ko ko yeboon na ko yaa fi dàq gént waaye sa gént googu moom xel xalaatu ko nit ñi xalaatuñu woon ne yére dana ma saama ci da ngay gis ku yor xaalisam pendant des mois du gis yére bu mu sol soo demoon ci dëkk yi àll yi fi da ngay gis ne tubaab yi ñoo daan def képp koo xam ne dee na ay tikke yu ñu daan joxe da ngay dem ci préfecture ba ñu jox la juróom-ñaari mètre percal moom lañ koy ëmbee percal yooyu am na ñu daan bàyyi bu ñu suul néew yi ñu ñëw rocc ko lu biti ko di ko jaayaat Serigne Ndiaye loolu am naa mi ngi noonu xattaa ci jamonoy peste bi loolu mbokk li may wax amagul téeméeri at de amagul téeméeri at su ko defee kon ngi gis sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yéen ñëpp a rafetlu lu dul ko ma wadd kon sàkku leen ci man ma wadd leen donte ne mbokk koddaay googu dañ ne ñaar la koddaayu zahir ak koddaayu batin koddaayu batin ba mooy lan mooy libaasu taqwa anzalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa risha wa libaasu taqwa zalika xayr koddaayu ragal yàlla moo gën ragal yàlla googu it yàlla koy may ku ko neex kon sàkku leen ci yàlla koddaayu ragal yàlla kon yàlla wodd leen koddaayu ragal yàlla yàlla yàlla wodd ñu zahiran wa batina sunu borom yàlla yi teg ci ne ay yéen samay jaam yéen a ngi nii de da ngeen di def bàkkaar guddi ak bëccëg man nag may baale bàkkaar yépp jéggalu leen ma ma baal leen mbokk jullit gëmal ne bépp doomu aadama day def bàkkaar yonent nga am doo yonent bépp doomu aadama da ngay def bàkkaar yonent nga am doo yonent kon dee leen ma jéggalu ma jéggal leen loolu tax yonent bi alayhi salaam daan wax naan ay yéen jullit ñi bari leen jéggalu seen boroom inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin aksara min mi'ati marra man de danaa jéggulu yàlla lu ëpp téeméeri yoon day leen jéggulu seen boroom su ngeen ko defee yàlla jéggal leen donte ne it am na astaghfirullah yoo xam ne nii da nga ko war a jéggulu waat bis bu la yàlla jëbalee ah jël sa kaasub sàngara day xam naa ne yàlla ñu yàlla jéggal rek daal waaye ndaw si ah day wax dëgg yàlla sa ndaw sa rafet ah xanaa yàlla ñuy jéggal rek waaye dem njaaloo loolu da nga ko war a jéggulu waat njéggal dafa am shurut yi muy àndal fokk bàkkaar bi ngay def boo koy jéggulu sa borom nga rëcc ko li de bu démb doon tey dootuma ko def bàyyi ko ci saasi dogg ci ne dootoo ko defeti mukk ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal la bu dee ne aq doomu aadama la nga delloo ko ko ca it la ca borom xam-xam yi wax it mooy bala ko yàlla nangu it day fekk ni day nekk ci délai bi yàlla di nangu tuub délai bi yàlla di nangu tuub mooy fii sukuraatoo wala loo xam ne ni ñaanu yàlla sax fekk ko mooy bu jant bi fenk ci sow ala kulli xaal nañu xam ni lii mooy tax sa astaghfirullah boobu valable mi ngi noonu sunu borom nag mu ne su ngeen ma jéggalu rek ma jéggal leen ca na am ba ko julit heure boo xamee ne nii def nga bàkkaar bàkkaar ba lu mu rëy rëy rëy ndax bàkkaar yi ba ca gën a rëy mooy shirk ca heure boo ko tuubee yàlla baal la rey nga nit boo tubee yàlla baal la naan nga sàngara boo tubee yàlla baal la loo mën a def boo ko tubee yàlla baal la allahuma lu dul ñu moytu seytaane nañu ah dégg nga boo defee li boo tubee yàlla baal la kon mën nga ko def waaye boo tubee yàlla baal la waaye mbokk tuub kan moo koy joxe allah subhanahu wa taala loolu tax jullit day ragal bàkkaar ndax xamul su defee bàkkaar ba pare dana tuubam déet te incha allah dana ñëw ci ci ci kanam sunu borom yàlla ne yéen samay jaam xam leen ne day mënu leen a yegg sama lor ba may lor mun leen a yegg sama njëriñ ba may njëriñ mbokk julit yàlla subhanahu wa taala soxlaalul jaam yi dara sunu borom mu ne wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna allaha huwa razaqu zul quwati l matin nit ak jinne dama leen bind ngir ñu jaamu ma soxluwuma ci ñoom ñu may jox dara ci wërsëg man maa leen di wërsëgal yàlla mbokk ko woomle la ghaniyun hamida mi ngi noonu looloo tax am na wax yi boo xam ne sunu kenn ci kilifa yi wax na ko njumte mënu ko passé mooy yàlla li mu am Sénégal bu ko xeebee perte gars yi yàlla du perte ab jullit dafay gëm ni la planète terre suuf bi ñu nekk suñ ko génne woon ci nguurug yàlla gi day mel ne rek yu mu jëloon benn pepp suuf génne ko ci jàkka ci mi ngi noonu yàlla ko woom le la ci suuf ak yu nekk ci biir yépp looloo tax mu ne mun leen maa jëriñ ci mun leen maa lor loolu kon muy wane ne lu waay def rek boppam la ko def comme ni mu nar a ñëwee ci ñaareelu partie hadis bi insha allah
yaa ibaadi لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه رواه مسلم وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث
mbokkuñu ñaareelu wàllu xadis bi sunu boroom subhanahu wa taala mu ne yaa cibaadi law anna awwalakum wa aaxirakum wa insakum wa jinnakum bu doonte ne ka jëkk ci yéen ak ka mujj ci yéen ak nit ñi ci yéen ak jinn yi ci yéen kaanu ala at atqa qalbi rajulin waaxidin minkum dañoo nekkoon ci benn xolu ka gën a ragal yàlla ci yéen ma zaada zalika fi mulki shay'a loolu dolliwul ci sama ngóor gi dara yaa ibaadi law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum bu doonte ne ka jëkk ci yéen ak ka mujj ci yéen ak jinn yi ci yéen ak nit ñi ci yéen kaanu ala afjari qalbi rajulin waxidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a yéen ñépp bu ngeen daje woon ca ka gën a saay-saay ka gën a nekk kaccoor faajir ci xolu kenn ci yéen loole wàññiwul ci sama nguur gi dara yaa ibaadi ay yéen samay jaam law anna awwalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum bu doonte ne ka jëkk ci yéen ak mujj ci yéen jinne yi ci yéen ak nit ña ca yéen qaamu ala qaamu fi saidin waxid dañoo taxawoon ci benn suuf benn fa saaluuni fa ataytu kulla insaanin masala mas masalata ñu laaj ma ku nekk ma jox ko lam ma laaj maa naqasa zalika mimma indi loolee du wàññi ca nekk ci man illa kama yanqusu almiqyatu ida udxila albahr xanaa lu dul buñ jëlee pusa dugal ko ci biir géej yaa ibaadi ay yéen samay jaam innama hiya amalukum la fa nekk daal seeni jëf la uhsiha lakum man kay dajale pekko ñel leen summa uwaffiikum iyaha gannaaw ba ma matalal ko ci yéen ci pay fa man wajada xayran falyahmadillah ku fekk aw yiw na sant yàlla wa man wajada xayra zalik fala yalumanna illa nafsa képp koo xam ne daa gis leneen lu dul loolu bu mu yedd lu dul boppam mi ngi noonu mbokk sunu boroom day wax ne doomu aadama yi su doon ñépp dañoo daje woon mel ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom nee na loolu yokkul ci nguuram gi dara loolu yokkul ci nguuram gi dara ndax nguur gi daa matoon sëkk avant muy bind nit ak jënne kon loolu dara yokkuwu ci mu ne itamit su doon te ni nit ñépp dañoo daje woon ci xolu iblis ngay gëm ne ki yiis ci mbindaa fa ni mooy iblis bu ñépp daje woon ci xolu iblis loolu it mu ne wàññiwul sama ngóor gi dara mi ngi noonu ndax jàngoon nañ ca gannaaw ne yàlla kenn mënu ko lool loolu it lim ñuy jàngal kon sunu boroom kenn du bàkku ci kawam moom mooy ki nga xam ne mooy ki woom lay boroom boobu subhanahu wa taala teg ci ne ay yéen samay jaam su doon tene ne kii jëkkoon ci yéen muy aadama alayhi salaam daa dékki sunu borom indi génération yi nar a ñëw ba ki mujj judd ci doomu aadama yi ñépp ñu dajale leen ci benn place dem jëli iblis ak njabootam ak mboolimi jinne ñu teg taxaw benn place kenn par kenn ku nekk yàlla naan ko ñaanal ngay wax li nga xam di ñaan la nga xam di ñaan la nga xam ba jeexal ba ñit ak jinne jeexal ku nekk yàlla jox ko la nga xam ne moom la ñaan sunu borom nee na loolu wàññul sama ngóor gi lu dul ne yow mi jëleen benn pusa dem samp ko ci géej yëkkati la taq ci pusa bi mooy li doomu aadama yi ak jinn yi xam ba man koo ñaan yàlla la fa des nag mooy xéewalu yàlla loolu it mbokk da ngay gis ne misaal boobu la ñu yeneen ci bàyyi salaam joxoon ci ajjana nee na mboolu mi xéewalu àdduna buñ ko dajale woon méngale ko xéewali aljanna dafa mel ne yooyu mi jëloon sa baaraam samp ko ci géej gi yëkkati li taq ca baaraam bi mooy xéewalu àdduna amaa li des ci géej gi mooy xéewalu aljanna loolee loo xam ne du lu ñuy mën a méngale abadan borom boobu itamit lii lim ñuy jàngal mooy mbokk dara màggul ci yàlla julit lépp loo xam ne bëgg nga ko yaakaar nga sa njëriñ nekk ci dee ko ñaan yàlla foo mën a toll ko ñaan na doon loolee kër laam oto laam soxna su baax laam lu mu mën a doon ci lu baax loo xam del ñaan yàlla rek yàlla dara tëwu ko lu ko neex def mi ngi noonu subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne nii moo ñu wax lii nee na itamit ay yéen samay jaam li fi nekk daal mooy seeni jëf la maa ngi koy dajale ñeel leen seeni jëf maa ngi koy dajale ñeel leen képp koo xam ne ñëw ne fekk fi lu baax na sant yàlla subhanahu wa taala loolu lum ñuy jàngal mooy julit du bàkku mbokk julit heure boo defee lu baax da nga yëg ni lii yàllaa la ko baaxee waaye du sa njàmbaarte kon ku fi fekk lu baax na sant yàlla moo tax waa aljanna buñ demee àjjana lu ñu wax alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah ngi sant yàlla mi ñu jubal bañ def li ndax nekk ñu woon di jub bu ñu yàlla jubalul woon te loolu lañ loolu lañ jàng ci bopp hadis bi borom bi ne yaa ibadi kullukum dallun illa man hadaytu yéen ñëpp réer lu dul ku ma jubal kon ku fi fekk lu baax na sant yàlla amma ku fi ñëw fekk fi lu bon ku mel noonu bu mu yedd ku dul boppam heure bi la yàlla joxe xel wàccoo na ak yow keneen ku la mën a réeral it yow yaay responsable loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax duna damaa dajeeg ab kàccoor mu détourné ma ba tax ëllëg si biir moom mooy responsable la wallahi yow yaay responsable tey jii drogue bi sunu état yi araamal képp koo xam ne dañ koo nax jël drogue jox ko bis bu ñu ko jàppee ah diw moo ma ko jox du ko ci génne loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax ndax yàlla subhanahu wa taala la ñoo jox xel kon ku fi fekk lu ban bu mu yedd lu dul boppam borom boobu subhanahu wa taala lii mooy kon xadis bu matale bi nga xam ni niñ koy waxoon ci njëlbeen kii di abu idris yéemoon na ko ba bu koy wax dafa naan groupe sukk lii it daf ñuy tënkal benn kàddu gu mag gu julit di war a gëm di ko wax fu mu mën a toll muy laa xawla wala quwata illa billah mboolem pexe mboolem kàttan mi ngi amee rek lu dul ci yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla jàppe la ñu àdduna ak alaxira waaw li muy wax ci suuf day wax rek ne kaana abu idris ida xadasa bi hada al xadis heure bu daan wax xadis bi jassa ala rukbatayhi day daan groupe sukk ci ay oomam mu ne rawahu muslim mu ne wa raway na an imaamu ahmad solo nañu jële ci imaamu ahmad nawawi mooy wax ne qaala laysa li ahli sham xadis ashraf min hada al xadis mu ne waa sham xadis yi ñu nettali amu ci bu gën a tedd bi xam ngeen sahaaba yi yonent bi dañoo tasaaroo woon léegi ñi doon bind xadis yi dañ daan wër dem iraq dem sham dem ijaz way makka ak la ko wër di dajale am na xadis yoo xam ne nii waa sham rek ñoo ko nettali ndax saxaabi bi ko déggoon ci yonente bi foofu la mujj foofu la deeyee am xadis yoo xam ne waa ijaz ñoo ko nettali yu makka ak la ko wër am na xadis yoo xam ne waa baghdad ñoo ko nettali moo tax mu ne xadis yi jële sham amu ci benn xadis bu gën a wér xadis bi nga xam ne moom la ñuy jàng nii léegi mi ngi noonu waaw
عمر قال الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سورة فاضل قال ابن عباس والمحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقيل معناه ثمانية عشرة سنة وقيل أربعين سنة قاله الحسن والكلبي ومسروق ونقل عن ابن عباس أيضا ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة تفرغ للعبادة وقيل هو البلوغ وقوله تعالى وجاءكم النذير قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم
bunt bi ñu dal nii mooy fukkeelu bunt ak ñaar ci téere bi di riyaadu salihin ñu tudde ko baabul xassi ala al isdiyaadi min al xayri fi awaaxiri al umur buntu ñaaxaate ci gën a baril jëf yu baax ci sa mujjug dund qaala taala awalam nuammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa jaakum nazir yàlla dana wax ak nit ñi yowmal qiyaama ndax dun dundalu ma leen woon diir boo xam ne dana ca mën a fàttaliku képp koy fàttaliku ca mu dikkaloon leen koo xam ne mi ngi leen di xupp qaala ibnu abbas wal muhaqiquun wax ni ibnu abbas ak ña nga xam ne ñoom ñooy génne atte yi maanaahu la yàlla namm ci loolu awalam nu ammirukum sittina sana ndax dund lu mu leen woon juróom benn fukki at wa yuayiduhu alxadisu allazi sanazkuruhu insha allahu taala dana dëggal loolu xadis biñ nar a jàng ci kanam bu sobe yàlla wa qila maanaahu samaniya ashrata sana am na ñu ne déedéet loolu mooy fukki at ak juróom-ñett wa qila arbaina sana am na ñu ne déedéet loolu mooy ñeen fukki at qaalahu alxasan walkalbi wa masruq ñoom noonu lañ ko firee wa nuqila an ibnu abbas aydan wa naqalu an ahli almadina jële nañ ci wala boog wa nuqila an ibn abbas solo nañ loolu it jële ci ibn abbas wa naqalu gaa yi bind it toxal nañ an ahli almadina ne ñi nekkoon madina day kaanu ida balaga ahaduhum arbaina sana tafarraga lil ibada kenn ci ñoom ku ci masaan am ñeen fukki at rek da ngay dëpp daa di yeexal sa dund ci jaamu yàlla mooy wéetal sa lépp ci jaamu yàlla wa qiila huwa albuluux am nañu ne loolu yàlla nga ci namm nit ki fi mu majeure mi ngi noonu wa qawluhu taala wa jaakum nazir amma la yàlla wax ne mu dikkal leen aju xëppaate qaala ibnu abbas wal jumhur ibnu abbas ak ñu ëpp ci borom xam-xam yi lu ñu wax huwa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa qiila ashayb ñu ne déedéet loolu mooy bijjaaw qaalahu ikrama wa ibnu uyayna wa gayruhuma wallahu aalam ñoom noonu lañ ko firee mbokk bunt bi kon dañoo gis ne ak mucc mooy li am solo ci lum mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ñaan yàlla allahumma jal xayru umri axirahu wa xayra amali xawaatima danaan wax yàlla sama yàlla nga war sëgal dund gi gën sama dund mooy mujj ga loolu nag firiwul mooy mujjee bëri alal ak kaza wa kaza mooy mujjee jaamu yàlla li may mujj a jëfit la ca gën na doon la ca mujj moo tax daana wax ne koo xam ne laa ilaha illallah moo mujj sa gémmiñ àjjana nga jëm àjjana nga jëm bokk na it lu ñuy rafet njort ci jaam bu def tuyaa tuyaaba rek dee ci tuyaaba jooju da doon woor dee ca da doon jihaad dee ca daf doon génn sarax rek après dee kaza wa kaza mooy mujjel lu baax sunu borom yàlla ni ndax dundaluma leen loo xam ne nit ki mën na caa fàttaliku loolee borom xam-xam yi am ci ay déggin am na benn xadis bu ñu nar a jàng ci kanam loolu ñu bari ci borom xam-xam yi ne mooy juróom benn fukki at juróom benn fukki at ki nga xam ne am na ko ku mel noonu amatul lay ci kanamu yàlla subhanahu wa taala te loolu mi ngi noonu comme niñ ci nar a ñëwaate ci kanam tuuti am na ñoo xam ne dañ ni fi nga amee fukkat ak juróom-ñett la ca loolu it mooy li ñuy tuddee majeur ci général mooy race yépp ku ci am fukkat ak juróom-ñett majeur nga am na ñu ne déedéet mooy majeur gi amma bu dee majeur rek mooy bulux am na ñoo xam ne nii ci fukkat ak juróom la ñuy majeur majeur mooy lan ci lislaam heure boo tëddee guddi gént yaa ngi sëy ndox génn ci yow xamal ne majeur nga ñu ne bu boobaa yàlla teg na ci yow responsabilité ñu ngi bind say bakkaar comme nañuy bind say tuyaaba donte ne ne am na ñoo xam ne dañ ne ñeen fukki at la te it loolu booy xool it alquran moom la gën a dëggal ndax sunu borom ak ñuy wax suratul ahqaf hatta ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amtu alayya an'amta alayya wala walidayya wa an amala salihan tardaahu wasli fi zuriyati inni tubtu ilayka ila axiri sunu borom mi ñu nettali waa ju baax ji nga xam ne ba mu demee ba am 40 ans taxaw na nag xam nag luy àdduna waaye waajal jëm ci àllaaxira mu ñaan yàlla mu wërsëgal ko mu sant xéewal gi mu ko defal defal ko ay waajuram wërsëgal ko mu def lu baax ci desitu dundam dogg na yàlla tuub naa jëm ci yow loolu kon mooy ñu ne 40 ans la looloo tax ba ñi nga xam ne nii ñooy tuxal xabaar yi saxaaba yi doon dunde nee nañ waa Madina ku ci masaan am 40 ans léegi sa desitu dund yépp yaa ngi koy jagleel jaamu yàlla mi ngi noonu heure boo jógee sa kër yaa nga ca jàkka ja yaa ngay jàng yaa ngay dund lislaam lépp luy caaxaani àdduna da nga koy woon gannaaw loole da ngay gis ne lu am solo la ñu ngi may nettali it benn race boo xam ne soriwul ci ñu frontière ak Sénégal ñoo xam ni nee nañu leen seeni dëkk bu ñu nekkee jeune lu leen neex def amaa suñ demee ba am 40 ans bu ñu demee ba am 40 ans daa dina commencé jënd góor a dem ca jàkka ja ne tuub nañu léegi mbokk bu dee yàlla dundal ne la ba nga am 40 ans de loolu lu baax la mais est-ce que am nga assurance na da nga yegg 40 ans. loolu mooy problème bi su ko defee jullit bu xel du dugg ci loolu mukk nga noonu fi nga majeure xamal ne yàlla ngi bind say bakkaar waaye boo dépassé étape boobu ci caaxaan it foo demee ba 40 ans dëppal soo dëppul 40 ans it ngal la waaye boo demee ba 60 ans xamal nag yaa ngi dernier virage boo dëppatul dootoo dëpp ba ila yawmi din mi ngi noonu
an abi hurayrata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري قال العلماء معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر
xadis bi fukkeel ak ñaar bi dañuy gis ne mooy yarhamukallah wa mal ahadis fal awwal an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam qaal أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة يالا داي دسيتول غانت ci benn waay boo xam ne dafa yeexal ak dundam ak deeyam ba baa muy am juróom benn fukki at buxaari solo na ko ulama yi ne maanaa bi mooy lam yatruk lahu uzran yàlla bàyyeetulu ko benn ngant is am halahu maadaama muñul na ko haazihil mudda dir boobu yépp yuqaal azara rajulin ida balaga al gaaya fi l uzr ñet ki bu ñu nee azara mooy jeexal na ngant ci moom bu dee matal na fond ba mooy ca la nga xam ne mooy ngant yem ko doon sàkku ci moom mbokk ci xadis bi ñu paase am na benn kaddu gu ñuy wax jaakum nazir nazir boobu boroom xam-xam yi am nañ ci wuute donte ne la ëpp ci ñoom lañ ko firee rawatina ki nga xam ne nii mooy kanfóore xeet bi di ibnu abbas loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy maadaama yonent bi xabaaram dikkal na la amatoo lay ci kanamu yàlla am na nag ñu koy firee ba tey ne mooy bi jaaw soo demee ba sa karaw gi ñuuloon commencé weex xamal na dee ngi fëgg sa bunt koŋ-koŋ mi ngi noonu pour di la wax waajal maa ngi ñëw loolu kon mooy bi jaaw mi ngi noonu waykat ba wax na ko donte ne fañ koy waxe yàlla gërëmu ko nee na boo gisee bi jaaw xamal na mooy tóor tóoru dee gis ngeen su ko defee kon loolu mooy la ñuy tuddee jaakum nazir imma nabi aw ashayb bu dee ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit ki su ko yàlla mayee mu dund juróom benn fukki at léegi amatul ngant ci kanamu yàlla boo dundee juróom benn fukki at gis nga lu bari suul nga ñu bari fekke nga lu bari sa kattan mi ngi wàññeeku loolu tax yonent bi alayhi salaam ne ñett ñi yàlla du wax ak ñoom du leen sellal ca mbugal mu tar mi ngi leen ñeel yowmal qiyaam bokk na ca buur buy fen waaye bokk na ca asheexu zani ki dem ba nekk mag di njaaloo jeune bii njaaloo ma ngay def lu xaraam mais mën nañu wax ne deretam moo ko yóbbu amaa dem ba am 60 ans di njaaloo kooku moom da ngay war musiba mënul passé loolu noonu mu amee ci njaaloo yi la amee ci lépp pays mi ba ay jeunes daje fa lu bon lu ñaaw la waaye màgget mu sëq ko bi jaam gis ko ci pays mi muy xoos dara gënu koo ñaaw ila axiri ila axiri su ko defee kon loolu muy wane ne képp koo xam ne am nga juróom benn fukki at ngal la waay war ngaa jéem a nag xam ne amatoo benn lay ci kanamu yàlla nga tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala te xam ne yaa ngi ci buntu wuy ji sa borom subhanahu wa taala loolu mbokk dañuy gis ne moom mooy li nga xam ne nii sunu borom yàlla ci ay mbaaxam noonu la tëralee li nga xam ne ni moom mooy xaj lii mu am ci ay jaamam muy wane ne mën na baal jeune loo xam ne du ko baal mag waaye du ñuy wax lu dul la nga xam ne ni mooy xasanul basri mosoon na ko wax ba mu demee ca jàkka ja fekk mag ñi toog ak seen bi jaaw mu ne leen waaw tool moom bu demee ba ñor lu ca des gaa yi ni ko góob mu ne kon mag ñi def leen attention xam ngeen dee rek a des si yéen waaye wëlbatu ko ci ndaw ñi ne leen waaw yàgg lu ni dégg tool bu dem ba ah gàncax ga nëf ne fi mu jóge fa yàqoo waay ñu ne ko ah kay mu ne kon nag moytu leen ca kon it mooy dee mi ngi noonu donte ne ku dee mag dee ku déwul mag dee waaye jeunes yi nañu moytu suñ kemtalal kàttan wallahi tey rek maa ngi wax yónnee ni du ma fi jullee takkusaan benn mariage bu ma waroon a dem avant may génn kër gi ñu téléphoné ni ki ñu waroon a takk rakkam daf doon dem moom it benn ngénte accidenté dee sur le coup ci xale bu ndaw la jigéen la dañ ko mayoon njëkki mu ànd ak état major ba mu naroon a defi ay joxaleen accidenté dee ci dee ci yoon bi loo xam ne kenn mësu ko woon a xalaat yal na yàlla jéggal ko ci yërëm ko su ko defee kon mbokk mi ngi noonu ñi ngi ci aw yoon jëm ci sunu borom kañ la ñu yegg kenn ci ñun xamu ko heure bu ñuy yegg yàlla nañ yegg ci ngërëmal yàlla wa sallallahu ah waaw mooy waaw ñetteel bi mooy ku amul dara di réyréelu mi ngi noonu ailul mustakbir amoo dara ba pare di réyréelu ki am di réyréelu ci kaw nit ñi yàlla bëgg ko waaye ko amul tus ba pare nag di pukkariwu ci kaw nit ñi loolu da ngay gis ne mooy ñetteel bi di jukko yu bon yal na yàlla musal ñu ci kon xam naa mbokk dañuy yem fii bilaal noddal ñu insha allah bu demee laaj insha allah